salaamaaleykum mbokk yi ñu topp ci 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam se ne moom lañ tuddee xam sa waay xam sa waay nag ki koy defal mooy Mame Fatou Kébé ma ànd yéen ñi nga xam seen tey bëgg ngeen a xam tey kan mooy seen waay tey euh, waay tey Modou Modou Kara Thiam Modou Kara Thiam moom it kenn dootu ko présenté ndax ngeen gis ngeen li muy def ci njàngam xasida mi muy def njàngam xasida mu am solo moom la ñu àndal suñu waxtaan tey war a sikk ak moom waxtaan yu yaatu waaye laata waxtaan yooyu tamit dinañ ko bàyyi mu daal di nuyoo nuyoo ak askan wi koy topp ci 24actu point com ñu soog a dugg suñu waxtaan euh, sëñ Modou Kara maa lay nuyu waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ci mbokk taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di leen ci suñu suñu siyaare ci Mouhamadou Mountakha ko ñaanal suñu borom dana am ci liggéeyal Xaadimu Rasuul suñu borom daal xam nga tam lépp ñu mbooleem yoonu yëpp ñu suñu waajur yi xam ne am nañ ko bàyyi ci kër gi ak mbooleem suñuy soxna yëpp ak mbooleem yi ci kër gi yëpp ñun suñu sëriñ secrétaire bi moom Cheikh Mahamadou Habib suñu bànn suñu yaakaar yéen ñu baax yéen waa benn kapat di suñu nuyoo suñu saara ci yow sama maam Fatou mm-hmm. di jàll ngay ku baax xam ci nga mën nañu yàgg na yàggul. waaye nag yàlla nit ku baax la ko xam ne bari na te lool. ñu ngi jaas nañu ñëw ci yow. Mm. wàcc ci mbooleem ñi mm. di mm. ah, allah ngeen dégg ko noonu sëñ Modou Kara Thiam la dégg ngeen ni mu daal di nuyoo nuyoo bu am solo ah, waaye sëñ Modou comme que jotaay bi tamit dañ koo baaxoo di ko ibbi akum jàngam xasida ñu daal di bëgg nga daal ñuy yëkkatil xasida pare ñu soog a door suñu waxtaan.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 الحلق في زعبها بحق مبين لا يعاني من سحبي من الحق جاء الحق للحق في زعبها بحق مبين الله واني من ذنبي كتاب به نرجو من الله رحمة ونرجو به دنيا من الكرب رجونا من المولى به خير مطلبنا وفزنا به في كل دفع وفي جلبي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 aha macha allah dégg ngeen ko noonu ci njàng mu asi am solo moom nga xam si ne moom la daal di yëkkati ci jataay bi ubbeeko muy sëñ Modou Kara Thiam eh, sëñ Modou Kara Thiam njàng mi am na solo waaye boo doon wax eh, sëñ Modou Kara Thiam kan mooy sëñ Modou Kara Thiam waaw soxna Mame Faty sëñ Modou Kara moom danga doon ab taalibe boo xam ni ni fi lépp nag eh, fi fi la jànge alquran fi la jàngim jàng doon taalib boo xam ne ci Darou Nahim Dar ah, ah, waaw. loolu am na solo sëñ Modou Kara ndax mën nañoo xam tamit ci ci ban année ci nga daal di dugg ci njàng mi. waaw njàng mi nag ah, mel mi bëgg a yàgg tuuti waaye daal bi nu mën a takk ci àddina xam naa ni 93 daal xam naa ni 94. ndax guddi gi mu njëkk fanaane maa ngi ko fanaane Dakar 94 la waaw xam naa daal année année année yooyu rek mooy mooy takk bi waaye xam nga dafay doon liggéey wax ni daanaka bi ñu xàmmee rek wax dëgg yàlla lañ ko waaw waaye nag euh, guddi gi njëkk fanaane daal nag mu ngi ko waxee mi ngi doon 94 ci Dakar Médina waaw ah, sëñ Modou euh, bëgg nañoo dikk tamit euh, bi nga nekkee ci njàng mi kan nga jot a doon roy. waaw man nag euh, sëriñ Abdoulaye Seck moom laa njëkk a roy waaw ginnaaw bi roy naa sëriñ Khadim Gueye ba léegi nii moom laay moom laay roy boole koog samay yari yari boobu waaw. ndax mën nañu xam tamit kan nga jot a doon topp bi nga ci nekkee. waaw am naa ci ak sëriñ Khadim Gueye am naa ak sëriñ Khadim Gueye waaw ñoom ñaar lan la sax ñu si ñaar kan la. ñoom ñaar ñoom sax ci ñaata at. waaw xaw na yàgg nag moom xaw na yàgg def na biir bu bu xaw a hmm. xam naa ba ay deux mille cinq deux mille six la xam naa. kan kan nga ci mujj a topp noonu. waaw xam nga ñun daanaka euh, bi ñu ànd daanaka kuréel yëpp dafa doon benn benn benn kuréel naan dem fii dem fii waaw waaye daal euh, biñ nekk ba ay deux mille cinq deux mille six daal. ci lañ toog nag euh, sëñ Modou bëgg nañoo dikkaat tamit ci cassette enregistrement yi nga xam si ne moom ngeen di def euh, mën nañoo xam tamit ñaata cassette yoo xam si ne moom nga ci def. waaw cassette yi na euh, xasida taxalu baay wala ko wala suñu kàddu def na bu ànd ak wala Ah, ah, sëñ Modou ba tey bëgg nañu dikkaat tamit ci xas yi nga xam si ne moom ngeen di jàng ah, ndax sëñ Modou ci wolofal day jàng wolofal wala day jàng rajas wala njàngum aw lu mu ëpp ci lu muy def. waaw ñun moom côté boobu moom bëri bëri bëri li ñuy wax bëri bëri bëri gannaaw ci gannaaw jàng jàng rajas ndax ñun jàng ngi di jàng bala ngaa tàmbali jàng aw lu ci bu dee bu duggee fanaan. day rajas rajas bu yaatu doo ko jàng euh, jàngu aw mais nag suñu jàng moom dañuy jàng olofal ndax olofal euh, yii mag ñu baax ñu ko benn yii euh, ndaw ñi nga xamante ni ñooy topp seeni tànk ñoo bind olofal yooyu te lépp ci sëñ bi ci la jëm ak njabootam kon nag loolu ay message bi yoo xamante ni di ko jàllale dafa solo lool ndax réew mi ah, ñi fi doomi olof olof ñoo ëpp. waaw mm-hmm. ah, te sëñ Moussa dafa wax ni cër bu wala fa boobu yoo xam ne wax yi lépp a yor lu ngir suul lay mm-hmm. ah, moo tax wala fa moom ndax wala fa moo tax ñun ñoo xam sëriñ bi waaw wala fa ku ko gëstu mm-hmm. doo doo doo doo doo doo ko doo ko desal gannaaw ko gëstuwul nag mën ngaa bañ a xam ne lu ci ne mën ngaa jàpp ni mm-hmm. ay ay wax la yu wax nii rek mm-hmm. waaye dafay lu am solo dafay lu am solo loo xamante ne koo gëstu ko na rek mm-hmm. da xam ni. Ah, ah, sëñ Modou ba tey bëgg nañoo dikkaat tamit ci njàngum aw mi comme que yéen jànkat da ngeen koy def bëgg xam tamit njàngum aw fan la soxi ko njàngum aw ci ñi koy def nii waaw ah, njàngum aw moom ci liñ xam ci histoire Serigne Cheikh Fall Khataba lan xam ci di njàng ñu lay tontu mm-hmm. waaye njàng mbooloo moom yàgg na fi mm-hmm. ndax wax na ni bi sëñ bi nekkee jaaree mm-hmm. euh, daañu sëñ Massamba bii ñuy wax parce que wutoon maanaam kuréel bi nga xamante ni koy daaj waaye bu dee ci mbii ñu def noonu ci sëñ Saxal Xatam la ci la soxla soxla ko. Euh, mu nekk noonu dégg ngeen ko muy question boo xam se ne bu am solo la da bëgg nañoo dikkaat tamit eh, ci euh, sëñ Modou di ci mm-hmm. euh, comme a ngi ciy bàyyi xel ci njàng mi ndax dafa mel ko tamit nee mas naa jàng xasida mm-hmm. bi mu ko jàngee tamit bi nga xam se araf bi da koo changé mm-hmm. da ko cee gàggati ne ko araf boo xam se araf yi ma bind buñ ci changé bu nekk rek changé ka langage ba muy firi est-ce que loolu tamit yéen a ngi koy bàyyi xel ndax yàlla doon na euh, jaar nañu ci daara gëstu nañu dara ci xam-xam tuuti euh, ba tax na yu ci bari it ñu ngi ci bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, xëy na nag mbindum sëriñ bi moom dafa mel noo xamante ni xam ko dëgg dëgg dëgg dëgg day jafe ñun ndaw yi moom ah ñoom ñi ma ci jaxasoo ñu ci ëpp dëgg yàlla ñu baax a baax a baax a baax. ndax léeg-léeg sax nga yër xasida boo xamante ni mm-hmm. da nga xam ni mbind mi xaw naa am kii mm-hmm. ba defee yow da nga da gëstuwaat mm-hmm. jubbanti yi nga xamante ni ñoo ñoo kii waaye yooyu nag euh, li nga xamante ni moo ca euh, doon la ci gën mooy ñuy ñuy ñuy ñuy ñaan ñi nga xamante ni ñooy moo xasida yi ñoom it dañ ci am part responsabilité bu mag a mag a mag ndax mbind moom day doon loo xam ne daf yi des te day day dugg fu ne te am na ay borom xam-xam yu fi nekk yoo xam ne tamit ay jàmbaar lool na ci yoon wi. Mhm. ku mel ni sunu sëriñ soosu am ni sëriñ Abdourahman moom sëriñ Abdou Khoudoss mhm. ak ku mel ni sëriñ Alhaaji Mbàkke moom sëriñ Moustapha am sëriñ waaw ñoom ay jàmbaar la lool borom xasida yoo xamante ni ñoom dañ koy jël toppaat ko wala ñoo koy bind am ni boo xoolee ci suuf sax day def seen signature di ñu wax ni sëñ Ibrahima Mbacke moo ko topp ba mu wér kon nag euh, ñi nga xamante ni ñooy muul ak ñi ñi ñi ñi ñi ñi bind war ñoom dafay lu am solo te mm-hmm. loolu nga ci wax euh, solo loo xamante ni sëñ bi euh, mas na ci am comme ci comme ci comme ci xaj mm-hmm. koo xamante xasida bi daal di doon jàng mm-hmm. bi ñuy jàng midadi wa aqlaami liman saxsax yemma kama saxsaxa seytaana wal jaxla wal xama maa laaw an alxa asan kalma maa la si xidmati ramma moom mu def ramma xam nga ñaari baat yu bokk ñu fii fii ramma day am sadda boo nee ramma rek waaw ah, mooy kat moom tamit suñ tubaab liggéey ba mu nag waaw nga ni maanaam daal daal day sànni waaw xam nga loolu dëgg yàlla am na sëñ bi neen bi mu kii fëgg daan ni ko ah daan ni ko ah rammaa nga naan rammaa xam nga loolu it ay setantal la te loolu yàlla noonu moom ñu ngi ci bàyyi xel bu baax a baax ndax xanaa ñaan suñu borom mi ñuy dimbalee ma doon luñ ci dimbali bu baax a baax seen ci ñu àggale ko ndax it day loo xamante ni dafa dafa dafa dafa xaw a doy waar ay wolof lañu te arab te am ay sew yu ne ci yoo xam ne yàlla ñu nit a am na solo sëñ Modou euh, tamit bëgg nañoo dellusiwaat ci xas yi nga xam se ne moom la Serigne Touba bind ak yi nga xam se ne tamit jotu koo bind mm. est-ce que jànkat yi tamit yéen a ngi bàyyi xel ci xas de yooyu. ah kay maanaam lu sëñ bind moom daa yomba yomba ba xamee xam nga sëñ bi ay waayam li sëñ Sam Mbaye wax nee na bind mbind am mbindam nee na boo ko dee jàng doon jox wala nga firi nee na li ngay yëg ci mbindam bokkut ak beneen beneen beneen mbind. maanaam suñ borom moo barkeel mbiram ci boobu. ak liggéey bi mu liggéeyee di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangu gu mu nangu. Mm-hmm. moo tax fii ne mbiram mm-hmm. euh, dafa yomb yomb yomb ne li nga yëkk ko doon boo dee jàng mm-hmm. ci ko am teewlu mbir moom lu mën doon teewlu daf ci am solo tuuti rek waaw mu mel ne tamit xam naa ñiy seetaan bëgg nañoo xam tamit comme que yéen ay jànkan ngeen te xàmmee ngeen yi nga xam se bi tamit eh, bind ko ndax mën nga ñoo dikkal ci yi nga xam ne eh, bind ko ci ay quelques xasida waaw yooyu nag euh, ay maanaam benn benn la am na ci ci def ci def ci def ci am daal lu mel ni ñu bari ñu ci werante ñu a sëñ bi bind ko am na gën xasida bu ñuy wax maanaam ci njirul alamin ah boog it ñu ñu ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ji am na beneen it bu muy dégg mu ngi wax kii man tijjee wax ñu koy wax waaye boobu it ñun amuñ ci benn maanaam firnde bu bu bu bu wér wér wér waaye daal xam nga donte it bind ko waaye dafay am xasida yoo xamante ni. maanaam maanaam boo ko boo ko boo ko seetal tamit maanaam lan lan lan lañ cee wax da nga xam ni lu lu baax rek waaw te xasida boo xamante ni day fekk fekk balaa waaw ndax euh, boo demee ba ci mujjantu way ba ma ngay wax naan maanaam maanaam man xaaral fii semaine yu bàyyi amoon laa ñu naan balaa yi xam nga loolu moom day lu am solo te jamono bii ñu nekk nii ci jamono ji euh, digle nañ baax ñu ko ciy ñu ko ciy ñu koy jàng. waaye loolu boobu nag gëstu nii moom bu wér nii sëñ bi ko dañ koy dégg ngeen ko noonu ni mu daal di répondre suñu question ci laaj yu am solo yooyu euh, sëñ euh, sëñ Modou Kara tey bëgg na dikk tamit ci njàngam wolofal euh, mm-hmm. comme que koy def tamit bëgg nañoo ñoo xam tamit ba xam yow yaay bindal sa bopp wala dañ lay bindal. waaw man ak moom binduma binduma wolofal waaw waaye nag ñi koy bind. ay borom xam-xam la man ñi may jàng seen wërfal ñëpp. ay borom xam-xam la yoo xam ne maanaam di yàlla xam na narut am xam na naxu dégg dégg nañ fekk na xam na xam nañ ko wax dëgg yàlla wala fa li jàng wala fa yu yoo xamante ni bu dee ci sëñ bi la jëm ah, ku ko nga xam ni kii ku ku dund bi waaw ah, wala fa di sëñ Moussa Ka sëñ Bay Jaxate Cheikh Samba Diarra ah, sëñ Mor Kay yëpp dañuy jàng seen seen seen yéen wala fa waaw ah, wala jàpp wala fa yooyu ñoom kenn ku ne ak ki demoon benn benn benn benn waxe waaw da yàlla day wala fa yu am solo la yoo xam ne moom moom boo ko jàngee da ngay yëg sëñ bu baax a baax a baax waaw te ñun loolu la waaw sëñ Modou ba tey bëgg na ma dikkaat ci njàng bi muy xeeti jàng yi nga xam se ne moom ngeen di jàng muy njàngum rajas wala ni ma ko waxee woon olofal wala fi yan ban jàng ngeen ci yaakaar ne moo ci gën a metti waaw jàng nag moom moom moom bépp boo ci teg amul lu ci sedd façon jàng yëpp métti ndax xeetu wax moo métti ndax nga wax nii rek ñu di def nii ñu ñu nii di di di wax mm-hmm. bu yàggee rek day daal daal di métti mm-hmm. waaw dina wax boo xamante ni léeg-léeg nga yëg sa baat baat mu sori waaw xam nga kooku moom boo koy def te yëg bi benn benn benn benn euh, ak wér sa yaram rek da nga ne métti na leer la moo tax euh, lu am leer boo ko dee doo koy doo ko yëg ndax leer gi leer gi ci ci nekk moo lay dimbali moo lay gànd ba na diir bi nga koy def doo yëg doo yëg coono maanaam li soxla woon fàtte leneen nga yëg dara ci sa yaram sax toog di jàng mhm. maanaam diir bi ngay toog di jàng mhm. day mel loolu musula musula tam waaw maa ngi fàttaliku benn anecdote mhm. benn magam Tuubaa bu ñëwoon ma yoroon loxo bu métti boo xam ne yéeme na maanaam bi may jàng sama di euh, may tàmbali jàng gars yi ñu ngi may muy dox bu méttee sax boo xam ne moom lool. gannaaw mm-hmm. des waaye diirub li ma toog ci xasida yi moom. Mm-hmm. daa mel ni man dara dara jotuma. léegi la nga yëg moom gannaaw ba nga ba nga noppee nga koy yëg. Mm-hmm. loolu nag moo ci nekk rek. maanaam baaxul sëriñ bi. nangul bi ko suñu borom nangul. mooy feeñ ci ay ay ay ba tax ba bon jéego bari doo ko doo ko yëg. Ah, Euh, ba tey euh, sëñ Modou bëgg nañu dikkaat tamit euh, ci tournée yi nga xam se ne yéen jànkat yi tamit dangeen koy faral di def ndax señ Modou bokk na ci jànkat yi nga xam dañuy def ay tournée waaw ñu ci réew mi di jàng ci ay barab yu fasantu ko bu baax bi rek maa ngi wax léegi seen dëkk moom doonul benn benn barab boo xam ne fa ngay jëm. Mm-hmm. moom fa la soxla woo rek léeg-léeg jëm euh, Dakar léeg-léeg nga jëm côté Thiès nga jëm côté maanaam Njàmbur moom daal fa la soxla woo rek. Mm-hmm. fa la ngay jëm. Mm-hmm. waaw ah, ba tey bëgg na ñëw dikkaat tamit eh, ci comme ça euh, li wax léegi national bi laa ndax yaa ngi dem ay bitim réew ak bitim réew nag am nga bitim moom dafa xaw a moom soo génnee. Gambie génn Mauritanie dem ay Mali Côte d'Ivoire yaay bitim réew waaye maanaam Europe daal moom moom la ñu demagul moom te wax dëgg yàlla xanaa day suñu borom dugalagul rek waaye ñun fu mu ba tey sëñ Modou tamit sa relation bi nga xam si ne moom nga am ak ñoom. relation am ñoo ne la nga seq ak ñoom nga koy seq ñoom boobu sax dugg ci politique. ñu ngi ci seqal moom ñu ci ba ñu ci bari. Mm-hmm. wax dëgg yàlla li muy seqal ñoom boobu ngay seqal sax. Mm-hmm. boobu ñoom dugagul sax ci pël mm-hmm. waaye xam nga àdduna moom euh, ku fi nekk rek faaw nga soxla woon mbiri àdduna. te ñu ci bari moo xam ñu nekk à pouvoir moo xam ñu nekk na opposition. maanaam ñooñu euh, faaw ngay am leen tey ñoom. am leen tey ñoom bi mooy. dafa am yooyu soxla woo yoo xamante ni. mënuloo ko si bopp te ñoom la nekk. Mm. ma ci tudd kenn ku ñuy wax euh, Mamadou Guèye. Mm. Euh, di sama mag di sama sama nijaay di ci man wax di jàll. Mm. di koo xamante ni moom da ciy yëngu waaye yorul affaire politique yi maa xam ci njaay. ndax moom politique euh, ko ci ak taalibeem dara. dara muy nit baax koo xamante ni dañuy jàppale ci côté yu bare bare bare bare yu seqet yu bare. yàlla xam ne ni màggalu Tuba maa ngi koy jàngal fii ci këram gaaw it maa ngi koy jàngal këram gumba bu nit ku baax wax nga dani kilifa la takk ay ndombe tànk yu bare bare bare bare waaye wax dëgg yàlla moom ab taalibe la waaw ak ñeneen ak ñeneen ñu bare wax dëgg yàlla ñoo xam ni seq na lu ñoom waaye baax rek lan lan lan lan nga àdduna moom boo fi nekkee mm. ni ma ko waxee léegi léegi mm. la ta bari na yu soxla waaye nag loolu moom bu ñu yàqal ci suñu pas-pas dara wax dëgg yàlla waaw. waaw sëñ Modou ba tey am na solo ñu daal di bëgg a dikkaat tamit eh, ci jàng ak politique ndax déggoo nañ doonub jàngkat ak bëgg a nekk. bëgg a nekk politique seen waaw xam nga politique moom wàññiwul dara waaye politicien moo ko ndax adduna loo fi gis mu taxawal politique bi ko doxal waaye nag ci doxin yi doxin yi ñuy dox. Euh, ci la wute yi nekk waaw ah, ndax lislaam laata muy toll fii mu toll lépp ci politique ci lañ ko doxal waaye nag politique boobu bi bii ñu boobu xam nga politique bii xew suñu réew mm-hmm. waxante lu bon ngàññante mm-hmm. xasante mm-hmm. te li ngay wut boo ko amee daal defaat nii waaw xam nga loolu du du lu du lu du lu baax waaye li nga xam ne danga koy def ngir lu gën a ñoŋal mm-hmm. maanaam maanaam maanaam sa réew mm-hmm. gën a ñoŋal sa sa diine mm-hmm. loolu wàññi wàññi wàññiwut wàññiwut dara waaw waaye nag képp ku ciy dugg ah, nga xam ni da nga ciy xuus ba mu yàqal la sa sa diine loolu moom dara jëru ci am waaw dafay lu foor l'islam yi di loo xamante ni moom moom moom képp ku ci dugg am na yoo xam macha allah sëñ Modou Kara Thiam la am na solo ñu daal bëgg tamit nga daal ñu soog a euh, kiiwal tënk jotaay bi. bi jaayi Jibril sajib suwaali wa balixni mablaxa وبلغني مبلغ الرجال وبالبسارات وبسوري إلى مماتنا وفي النزور وسليا وسلما على النبي وآله ما شاء بالنجوم واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة شعبي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بيا واقعا سعادتي يا ربي يا صليا على النبي وسلم وقد بي آجتكم مسلمين barki borom Tuubaa macha allah xasida bu am solo la dégg ngeen ko noonu ni mu ko daal di yëkkatee sëñ Modou Kara Thiam booy tàggoo ak askan wi xam si ne ñoo lay topp ci 24actu.com lan ngay tàggatoo. waaw xanaa di gën a sant yàlla rek di gën a ñaanal baax sunu kilifa yi des sunu kanam yàlla bàyyi leen fi Euh, li nga xamante ni moo lëmbee àdduna bi di mbas mi nga xam ni moom la moo fi wàcc dañu ñaan yàlla jeexal ci àdduna jeexal ko ci ci activité yi ndax xam ngeen ni ñun ñii ah, nga xam ni ci mbooloo ci lañuy liggéey kon nag ñu ngi ñaan yàlla euh, subhaanahu wa taala mu jeexal ko ba delluwaat ci activité yi ci côté yi nga xamante ni ñu doon daan dem yëpp ñu fay dem. di leen siyaare baax di leen ñaan bu baax euh, kër gi di leen tàggat te yokk seen mbébét ak seen yéene seen jumaa ngeen mottali seen yéene fekk yéene àggale ci barki borom Tuubaa Euh, jërëjëf euh, sëñ Modou Kara Thiam la dégg ngeen ko noonu ci xasida yi am solo yi nga xam si ne moom la daal di ubbee jotaay bi waaye tamit euh, tëjee ko tamit xasida gu am solo ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci leen sant yéen ñi xam si ne yéen a doon topp ci 24actu point com di leen wax ne xam sa waay moom nii rek lay daal di demee gars yi nga xam si ne fees nañ te ngeen bëgg leen a xam dinañ leen indi ci biir kii ci biir émission bi di xam sa waay Fatou Kébé ma leen di sant baax di leen gërëm di leen jox dox daje ci beneen jotaay yoo xam sa waay jaa ngeen jëf